yaa may wax wayloo boobu ban la sax bi nga wax ni daa mel neex na de ay <laughs> waay waay waay DJ tey tey sa émission bi neex na waay. <laughs> macha allah neex na macha allah ak euh, la may tëjewaat ci saajo ah. di ko tëj ci gaynde yi mooy. Ah. coupe d'Afrique bi. Mhm. incha allahu rabbi bu dee cent quatre vingt dix yëpp mi ngi ci défense bi xam nga luy loolu. defence bi défense bi. moo tax maa ngi ñaan sama mbokki sëriñ yi di leen lancer défi ñëpp a bokk Sénégal ñëpp a am droit di wax ci équipe bi bu leen kenn xoqatal tamit ba ngeen di ragal a génn di wax dara waaye ku ciy génn na nga assurer te jël say responsabilité football bi day jeex te seenub liggéey day continuer te nit ñi ñu ngi leen di interview pour fenloo leen waaye jubluwuñ ci pour wane seen talent ay vues rek la ñuy wut ci yéen moytu leen te ngeen intelligent bu leen kenn saraxe kenn yoralu leen si seen kër yi lii ab liggéey la bu ko kenn fowe ci réew mi ngeen bokk nag am ngeen droit wax ci ni ci ki toog naan mooy seen footballeur rek maay topp zoor ti tijji sa tiktok am droit di wax ci zoor yi ni la ab sëriñ amee droit yi moom it di wax ci zoor yi di wax li mi def ñëpp a bokk réew mi waaye buñ nepp sëriñ rek la ngeen di wax yéen da ngeen considérer leen nit ñi nga xam ne yàlla leen nattoo ñuy ñaan ku ci amul maam it am nga tëb sëriñ te ku ci jàq ci ñoom ngeen di jëm warmaal leen sëriñ si sëriñ bu fen rek ngeen yàkkamti waaw te yéen ñëpp ay fen fii yàlla rek mooy wax mu am nit ku dul waykat bi way na ko nit ku dul juum nit ku dul nu mu ko waxeeti ah sëñ Mara ngeen bëgg jël nit ñi teg leen place yu yàlla ma bëgg la fàttali hmm? du loolu ay wax yoo waxoon ci focus rek ci benn waykat bi nga hmm. wax ñu bëri mooy gëmuñ ko woon hmm. wala yaakaaruñ ko woon mooy bi ñuy wax jamonoy disque d'or disque d'or yow yaa génnoon ne nañ nëggandiko parce que des na ay weer ci kanam c'est vrai que actuellement la ñu yëkkatiwaat coowal disque d'or waaw ñu koy wax yow euh, fan nga ko tegoon ci seet moo tax mën na gis lu ne waaw mën na gis ndax ma koy wax booba nit dañoo jàpp ne semaine booba waale da koy tukki indaale ko mën na leen déedéet des leen yeeg benn weer ñaari weer ba ca ñetti weer ca kanam waali suñ borom dana ko jox yeneen disku d'or xam nga luy waali déedéet waali mooy waali waali waaw tey jii boo xëyee ñëw sa kër boo ubbee boo gisee loo xamut looy wax waali lan la saajo Mané bu waree dugal rate ko boo boo gisee looy wax waali mhm. moo tax kër yépp a am waali waali daal mooy waali rek wax ji nag dégg la moo tax waali léeg-léeg damay mel ni sax dama naan lim yor dëgg dëgg xam na ko waaye day dofloo nit ñi mel ni ku ko xamul est-ce que dégg nga li may wax. yaa fi njëkkoon dafa man soo biis ba noppi mel ni ku ko manul moo tax ñii nekk ci xeetu soo biis bi ñoom ñëpp Wally dana leen dofloo te fi Wally nekk ak ñoom fi ñu nekk bokkul. te bu doon football la dama naan la finaal bi Waly moo koy joué hmm? waaw waaw bu doon yëf yi bal la dama naan la Waly mooy finalu te buñ defaatoon beneen émission mu war a jël dama naan la Waly jël na coupe bi waaye fi mu ne kenn arrivé ci ñoom waaye course bi bu ñëwee bëreet da ngay mën a wàcc yàlla ne Waly jiitu. ak mbiru coow lu am ci moom dafa mel ni mooy yokk mbiram ak coow lu xanaa xamoo coowam sax tàmbaleegul. ok dana gën a wax ci moom ndax loolu moo koy yéegi waali dana gën a def moom ci ay mbiram ndax loolu moo koy yéege waaye dama ne la waali moom mooy waali rek. waali fépp foo dem fekk ko fa kër yëpp am waali xam nga bu njëkk lu ñu daan wax. Hmm. xale waali. daa dëgg la. xale waali waaw léegi lu ñu dem léegi mag yi am na. meer waali du dëgg. daa dëgg la ah yàllaa def ci moom loo xam ne boo ko gisee xam ne artiste bi la. loolu nag wax ko yàqul ci ci ci ci ci ci ñeneen ñi a ku ci mel ni ko Ibro Naajo xam nga ko. bu baax ah waay waay waayam woowu de. borom parcelle. wuu waay na lu neex de Ibro moom boo ko gisee nga xam ne macha allah am na avenir. am na avenir ci hmm? waay. Hmm, hmm, lu waay waxoon na ca delluwaat. dëgg la kooku kooku man <laughs> waaykat la te am na avenir boo xam ne man ngaa wax ci ginnaawam moom it loolu waaye woowu xam ngeen ne ci boppam la koy waay. waaw waay woowu. ñi xam bëri na ñoo xam ne tey alxuraan bu nekkee ci seen dënn Alaaji Ansu Ñang moo leen ko defal ci seen dënn mhm. maam Ousmane te kilifa la goo xam ne tamit bu fekkente ne def lu baax kenn du def mbir te boole woo ci nit ñi di ko nës-nësal dañ koo war a defal ay dog dañ koo war a gën a ñaanal ba noppi liggéeyam bii ñu bañ mu laal suuf maa ngi koy sàkku di ko ñaan njabootam gi nga xam ne ay nitu alxuraan lañ ay nitu dëgg lañ waay waay waay rek buñ leen seetaan kilifa dëkk bi boo gisee yu mel nii ñu koy génne waat di ko wax mm-hmm. dafa am ñoo xam ne alxurakaan képp mooy seen mooy seen mbir waaye nit ñi ña nga ca poma ña nga ca caaxaan ma te dëgguwuñ tey fii laa doon ubbee di jaale di wax tamit Mouhamed incha allahu rabbi kóllëre gi yàlla na ko saa borom gën a dogal yàlla na ko saa borom téye te ñoŋal lépp ci barkeb Serigne Saliou jërë ngeen jëf fii amaanilaa. acca di jël ñu ci waxtaan bi amiin mhm. euh, euh, Serigne Mara Niass donc noonu la mhm. koy euh, jaalee moom kilifa googu. di mhm. Mama Su Ñang alors dëgg la sëñ Mara c'est vrai que tey bu fekkee ni. comme ni nga ko waxee da nga doon nittu yàlla yàlla suñu borom itam may la ci wàllu seet à chaque fois liy ñëw yàlla di la ko wan man na nga baal ma kilifa dëgg dëgg dëgg ñaare laay gis guy war a dem ci laa gëmee ne al yëfi maa yi daf ma am lum ma wanaat ci suñ borom ne yàlla boo xenc xenc loo jege ko moo tax nit ku gàtt gis-gis wala ku gàtt xam-xam danaan ah lii xew suba yàlla rek ko xam hmm. ma ne ko yow sax yaa ngi weddi yàlla <laughs> waaw yàlla mi ne lu ma bind doomu aadama cee gënal cëral ko cër bu ne xam lii xew a ci gën a ndaw nga ne lépp li li xew yàlla rek ko tam ah déedéet yàlla xamal na ay jaamam loo xam ne passé na sax kon jërëjëf dijee <laughs> damay ñëwaat ci euh, tey émission yi mbokk yi. boo hmm. gisee ma leen. du euh, neex de. pleine de révélation lay doon ñu dem hmm. parce que itam 2023 bi hmm, ci nga def révélation yu bëri Serigne Mara Niass dama lay ñëwaat ci loolu parce que Bassirou Diomaye Faye buñ fàtte dëgg la Bassirou Diomaye Faye yow toog nañu plateau nga ne Bassirou Diomaye Faye dama gis mu demal Ousmane Sonko ci élection yi euh, Ousmane sax noppalu Euh, ci sama émission yu mujj war naa def sept mois huit mois booba président Ousmane Sonko maa ngi koy nuyu jàppaguñ ko xam naa danañ ñëw ci mbiram. Mhm. ndax am na luñ ci gis te am na luñ ci war a wax réew mi te am na mbir yoo xam ne danaa ci ñëw ci président Ousmane Sonko dama ne ko woon man dama ko yërëm ci coono yi nañu noppalal jëmmam ji te jël ku mel ni Basiru mi ngi ci kii bi ñëpp a ngi koy gis jël ku mel ni Basiru bu demee ci élection yi sax kum demandool moo lay gañe booba jàppaguñ Basiru président it mi ngi ci biti boo gisee ma waxoon ko man ñaare damay gis lu bari luy ñëw ci kattanuk suñ borom waaye la ma koy wax bu ma waxee sama wax nag day mel ne lu oyof waaye incha allahu rabbi bis dana ñëw danañ jox te danañ ci yegg yamaliwu ma ko nag ci Basiru wax dina leer sénégalais yépp même bu dul Basiru laa wax président Ousmane Sonko jël keneen. Mhm. demal déglu juwaat waxtaan wa waaye maa tàmbalee ci borom mbég me taar bi te Basiru it euh, euh, euh, ak ak ak kuy liggéey yi mbir ba xool seeni yëf. Hmm. xam ne waxuma la Ousmane bu tànnul woon Basiru sax bu tànnee mbir ma mën naa leer kon loola lu may dëxañ la ndax dañoo toll ci jamonoy fi ne code yi ak mbir yi ñu koy jël di ko teg ci bërëb ndax am na ñuy seetaan ñoo xam ne. ñi ngi sàcc ci yëfi sëñ Mara bëgg koo ñongale seeni politique te man politique ñoruma xam nga lu ma ñor. Hmm. réew mi la ma waxoon tey laa gën a